chet tet musuma gis lii jaaxle woon naa lool ci sama xarit bi nga xamante ni ndoxum siti daf ko sonaloon lool waaye bi ma demee ci pharmacie Al Maktoum ba mu jox ma ci savon yii oh xaw naa fa yéex a dem waaye xoolal ma sama xarit bi léegi yaram bi mu ngi nes nes yi moo tax xibaar bii daal duma ko nëbb képp ku ndoxum siti sonal lool fexeel ba daal di jot ci savon pharmacie Al Maktoum yi nga xam ne baax na ci yaram di defar sa tee waxuma la dara sax waaye yéen ñi nga xam ne seen yaram dafay xasan wala seen deru yaram di xub des fois sax seen yaram di génnee ay picc savon yi pharmacie Al Maktoum di jaay moo ci gaaw daf koy dindi ba sa yaram di nes nes a neex nag mu di savon yu am qualité la saa yoo jeexalee mën nga ko amaat da ngay dem ci pharmacie Al Maktoum nekk ci diwaanu Grand di savon pharmacie Al yi daal disponible na partout Sénégal ak sax ci diwaanu bitim réew mbokki seen jaaxle jeex na ak savon pharmacie Al Maktoum yi ndoxum siti moom jeex na ci suñu yaram jaaraama pharmacie Al Maktoum ñi ngi leen di siyaare yeen ñëpp sëñ Ousmane waaye daa am loo xam ne man waa waa daayira bi laa ko bëgg a yóbbante mm-hmm. moo di ni mm-hmm. man taalibi sëñ Tuubaa la cent pour cent mm-hmm. mais léeg-léeg da ngay am impression que nit dana jege dara du ko xam mais aussi dañoo war di jëfandikoo sunu xel doomu aadama dañoo war a jëfandikoo seen xel maanaam boo jëlee neexaluma leen nag ndax defal leen ma dara bien que mbir mi li naa taq ci rib laa def man ndax man sama yaay ji ma jur Faati Amadou la tudd da daan gane Cheikh Ahmed Tidiane eh, Ndakaaru foofee mu dëkk moom dong amoon sañ-sañ bi dem am fa weer dafa daan am weer sama yaay ji ma jur Faati Amadou yàlla dimbali na ma ba soxna Astou Kane man téye na ma ma nekkee liir xam loolu ay cër la yoo xam ne mënee su ko wéen mais bu loolu lépp jàppee jàllee li ma leen ma nga xamal mooy sëñ Moussa Sy li tax ñëpp bañ ko mooy dañu ñëpp dañoo baaxul comme ma di ngeen li ma wax am maanaam sëñ dafa wax ni boo demee ci ab dëkk soxna yëpp def daati neen soxna su fa wodd soxna yëpp sam la dama bu ngeen xamni ni man bok musuma ko deg wala ma gis ben ben mustarshidin bu ñak fayda di yambar yambari wala mu wala mu wala mu ñak xorom manam te loolu bu len defee daf nit dana am dara do xam lu ko may modi ni bo amé kilifa gu mat kilifa kilifa gu normal dal ci bañuy wax kilifa bamuy am xam nga boo nekkee kilifa gu normal ci jamono yi nga xamni kilifa kilifa yu anormo am léegi kilifa gu normal gi day mel ni ku anormal moo di sëñ Moussa si dafa am fulla gisuleen ko mu neexal kenn gisu ko mu ñàkkal jom kenn te li mu wax da koy wax mu leer xuumantuwu ko maanaam li muy wax da koy wax mu leer nañ kon moo lay xamal ne li muy wax xam na ko c'est-à-dire foo déggee mu wax dara nit ñëpp jàppandoo seen bopp dangay ngay jàpp ni nit ñi ñoo normalul ndax la muy wax moom normal na ndax xam na ko yoru luñ ko dépensé wutul lu leen neex te li ëpp ci nit ñi li muy wax da leen dina xari moo leen xamal ne lu mu xam la te dëgg lu ngeen ko déggal ëpp ca ña ëpp ca di ko dingat boo leen toppoon ñoom ñoo yées ca fañ wax ju man a doon nag euh, ma di leen xamal ni mustarshid aw meloom man toujours moo koy comparé dama koy comparé taalibi Sëñ Cheikh Mbacke maanaam ndax dañoo am fulla et dañoo ja maandu daal maandu maanaam duñ jëm naa nangam diw nangam ñi ngi ci liñ nekk ñoom te génnul lislaam kon ku leen di diingat xamal ne lam leen leen di diingate mooy nit ngay ka la jiitu ki nekk sa kanam moom nga gis moom banaa daa tuba ja daa gàtt wala bu ma daa gudd waaye ka nekk sa ginnaaw boo ko gis góorlu doo ko gis li nga xam ne sëñ Moussa man man man Aliou Ama su woote woon ni kaay leen dóor man ci ñi njëkk dóor laay bokk te taalibi sëñ Tuubaa la a nekk ci dëgg li ngeen nekk wér na ku am xam-xam li sëñ sëñ Moustapha di wax kenn ku ko wet maanaam boo waxee ñi ko weddi ñëpp dama ko wax kii ni leen ñi ko weddi ñëpp weddi dof la ñuy weddi ndax xam yow bu nit nee nangam am na da indi xam-xam ni nangam amut waaye ay naa sëñ Ousmane ñëpp liñ naa mbel mel naa yonentu du mooy yonentu nangam nangam mm-hmm. yàlla waxul ci alxuraan ni Moussa rey na bi aadama mm-hmm. lu ko génne àjjana <laughs> Moussa yàlla moom da ko ne xatalta nafsa fële mu ne mm-hmm. dafa mooy yàlla ko ah, ñëpp nag naa ay yonentu du mooy kon sëñ musa li mu wax mm. nit ñi la waxal mm. Sénégal nag dafa fees dell ki naafiq ku la gën a rëy làmmiñ dàq laa arabal gën laa ñoddil yàlla moo la gën a jaay li leen sëñ Moustapha wax wax ju leer la ku sa xam-xam yemul ci xam ko maandu ci kon maa man daal maa ngi seetlu sama collègue yéen bokkuma ci yéen waaye ci yéen laa bokk moo di ni sëñ Cheikh Mbacke sëñ sëñ Ahmed Tidiane nekk na fi ba jóge fi mës ta def gàmmo gu mu suivre ko bu bët set kon bëgg naa ci seen teewaay ndax man ñu ngeen ñu ngeen respecté la maanaam bu mu bu jullit ñëpp meloon ni yéen wahabit du fi am place bu jullit ñëpp meloon ni yéen wahabit du fi am place kon loolu laa bëggoon a yóbbante di wax ni sëñ Moussa ku ko ci mën a déggal ne ko man maa ngi koy ñaanal ci daraje suñ maam ji nekkoon fii yàlla na yàlla na yàlla na yàgg mucc yàlla na yàgg wér Eh, yàlla na yàlla ay noonam di yàgg di suuf yi ci kanam ba yomal xel loolu laa bëggoon a wax bég nañ ci yéen kontaan nañ ci yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullah chettt musuma gis lii jaaxle woon naa lool ci sama xarit bi nga xamante ni ndoxum siti daf ko sono lool lool waaye bi ma demee ci pharmacie almaktum ba mu jox ma ci savon yii oh xaw naa fa yéex a dem waaye xoolal ma sama xarit bi léegi yaram bi mu ngi nes nes yi moo tax xibaar bii daal duma ko nëbb képp ku ndoxum siti sonal lool fexeel ba daal di jot ci savon pharmacie almaktum yi nga xam ne baax na ci yaram di defar sa tee waxuma la dara sax waaye yéen ñi nga xam ne seen yaram dafay xasan wala seen deru yaram di des fois sax seen yaram di génnee ay picc savon yi pharmacie almaktum di jaay moo ci gaaw daf koy dindi ba sa yaram di nes-nes yi te ci gën a neex nag mu di savon yu am qualité la saa yoo jeexalee mën nga ko amaat da dem ci pharmacie Al Maktoum nekk ci diwaanu Grand Yoff numéro téléphone am di 77 604 07 71 77 604 07 71 savon pharmacie Al Maktoum yi daal disponible na partout au Sénégal ak sax ci diwaanu bitim réew mbokki seen jaaxle jeex na ak savon pharmacie Al Maktoum yi ndoxum siti moom jeex na ci suñu yaram jaaraama pharmacie Al Maktoum